ak eh, ci suñu sang abu said alxudri radiallahu anhuma yenn yàlla boole leen gërëm annahuma shahida ala annabiyi sallallahu alayhi wasallama annahu qaal ñu ne seede nañ ne fekkee nañ yonantu sallallahu alayhi wasallama muy wax ne laa yaquudu laa yaquudu qawmun yadkuruuna allaha azza wa jal illaa xafathum almalaika aw nit duñu toog di tudd yàlla mu màgg mi yàlla mu tedd mi te màgg lu dul ne malaaka yaa ngi leen peek wa ghashiyatuhum rahma yërmande yàlla dikkal leen muur leen wa nazalat alayhim sakina dal dal wàcc ci ñoom wa dakarahum allahu fi man inda yàlla tudd leen ca ñafa moom maanaam fu aw nit toogee di tudd yàlla ñeenti xéwal yii yàlla dana leen ko jox malaaka yi danañ leen peeg te jotaayu malaaka jotaayu yërmande la moo tax yërmande dikkal leen te fu yërmande dikk dal am fa moo tax dal wàcc ci ñoom te yàlla ku dalut du jubook yow ba ñu dalee nag mu jubook ñoom ba tudd leen ci xadaraam moom yàlla booboo ci gën a rëy foo gisee aw nit ñuy tudd yàlla fexeel bokk ca ndax malaaka yaa nga fa yërmande yàlla nga fa dala nga fa bi ci gën a neex gën ci màgg mooy sama borom dana tudd ku fa toog sama borom mentionné la amul xéwal gu ni toll moo tax Sayyiduna ubéy ba ko yonantu ne sama borom moo ma digal ma jàng ci yow ma jàngal la lam yakuni alladina kafaru mu ne ko sama borom tudd na ma ci sama tur mu ne ko waaw bëtam xelli rongañ muy jooy nañ yàlla boole ci ñamuy tudd abadan wa dawman boole ci ñooñ xadaraam boole ñu ci ñooñ xadra yonantu sallallahu alayhi wa sallam boole ñu ci ñooñ texe léegi ba faw hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim subhaanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an laa ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi dégg sunu kàddu lii xew at mu jot muy xew-xewu lislaam moom lañ leen di fàttalil muy annuel diine fundraising bu mag boobu nga xam ne mu ngay xewee ci Staten Island ci taxawaayu ICFA buñ ko waxee nag sunu xel yëpp def ci imam Muntaqa Sakho borom xam-xam bu mag bi nga xam ne tey mooy jàngal ndaw ñi di jàngal mag gi ki miin Makka ak Medinatul wara nee naa la imaam Mountakha Sakho mooy éviter mbokki jullit yëpp ci Staten Island ci jumaa ju mag jooju nga xam ni mooy masjid al muhajirin wal ansar nee naa la mu nga nekk ca seven forty Delafield Avenue ca Staten Island nee naa la masjid bu mag boobu imaam Mountakha Sakho ku ne xam ko ci lislaam moo tax béréb ba dem nañ ba bëgg nag building bu bees tàq boo xam ne nii bu ñu moom la ngir lislaam bi mbokk yi diine boobu ñuy woote muy diine fundraising nee naa la ñëwal joxe sa alal waaye ñu servir nag nga lekk mën a déglu sa diine waaye jël la nga am def ko ci yoon yàlla Imam Mountakha saako bis ba agsi na kañ lay doon yemook samedi décembre 23 2023 ah mbokk yi nag heure ba day teel a tàmbali ban heure lay doon cinq heures bëgg na ñëpp teew ca béréb ba ndax su ko defee la ñu fay dajale ñu mën koo dajale daal di mën a teel a delluwaat nag ndax ku ne xam ne ne satan ay leen lay xewee kon mbokk yi lu ci waay am te bëgg ko cee def te sori jëlal numéro zel bi ma lay jox 347 265 7703 loolu mooy numéro zel bi 347 265 7703 mbokk yi nee naa la bëgg nañ building boo xam ne nii tey képp koo xam ne nii tey ñëw nga wala nga bëgg a jàng sa lislaam da mën a ñëw ci béréb boobu moo tax ñuy woote fundraising boobu kon mbokk yi jël leen ngeen gaaw ñëw def seen alal ci yoonu yàlla Imam Mountakha Sakho woote na ci taxawaayu ndimbalu ICFA kon nag mbokk yi bu ko kenn tardé noonu woo nañ leen ci te yaakaar naa képp kuy këru diine te nekk ci cinquante états yi rawatina ci biir Amérique rawatina New York City ñu ngi woo ñëpp nag rawatina consulat yi ak association bépp organisation bu nekk ci dëkk bi bul tardé bis boobu le 23 décembre fii ci Staten Island